ku dugg ci gaanuk sëriñ abo sëñ Fallilo àggale la gaal la gaa ngi ni taar ku nekk ba taar da yaay xala yëg ku dugg ci gaaluk sëriñ abo sangub sëñ Abdou Khadir Jiili sangub sëñ Abdou Khadir Seck ku dugg ci gaaluk sëriñ abo sëriñ abo sëriñ abo sëñ Fallilo àggale la ndey bu sa baay Mbàkke la réew mi taamoo moo ne ci sëriñ Fallilo nee leen ma juumoo ndey bu sa baay Mbàkke la mi taamoo moo ne ci sëriñ Fallilo nee leen ma juumoo xalifa nday jaa day bawoo mbusoobe ngir ay sërif lan ngir ay sërif lan fawqa nan daroobe wàllu ndayam ak wàllu yaari maamam ndayam di baayam baayam ay ni ma woy fi seex mbay moom sëriñ fàlliloo gaañaa daje gaañaa daje gaañaa daje ma woy fi Mbay Sekk moom Sëriñ Fallilo gaañaa daje dalal ni ko yaay rijaalu góor yàlla liggéey la woon ca kër Sëriñ Fallilo ci kër sëriñ Falilu ana soppay sëñ Mbay Sekk rijaal ana soppay sëñ Mbay Sekk rijaal def leen nii ñu màggal bàyyi sëriñ Abdou Xaadir góor yàlla guy liggéey la woon ci kër sëriñ Falilu góor yàlla guy liggéey la woon góor yàlla guy liggéey la woon góor yàlla guy liggéey la woon góor yàlla guy liggéey la woon ci kër sëriñ Falilo pasa pasa baawa a doki wa a ngëmam nga ñëw na ci Seex Fallu sëriñ bay Sakiri Jaal ñëw na ci Seex Fallu sëriñ Mbay Sakiri Jaal ñëw na ci Seex a ana soppay sëriñ Mbay Sakiri Jaal na ci Seex Fallu na ci Seex Fallu du dellu te ne du dellu ñëw na ci Seex Fallu taane du dellu kile di góor yàlla kile wakiilu galla yanoo saalum galla yanoo saalum galla yanoo saalum di wër Sëriñ sëriñ bay sekk rijaal bayu sëriñ abdu xaadir sekk sëriñ mbay sekk rijaal gàlla yanoo saalum gàlla yanoo saalum di sëriñ fàlliloo yéen ni ba mi dajeek fa diilu gàlla noo saalum di sëriñ Falliloo sëñ Mbay Sekk ri la niñu magal serigne mbay sekri dal jere ngeen